يوم هبت الريح من تلقاء كظيمة وأومض البرق في والماء من إدمي بنين نقولوا يا الله من الدكورما نيو سير ريسبونسابيلتي لوتي والو يالا اك لوتي ايتا اوتوبا لوتي والو شوفور دي بس اكسيليراتور lu ci walu apprenti ba taxaw ca gannaaw oto ba naan la dawalal lu am yàlla mu ni nañ seet responsabilité way xëy jël yëpp teg ko borom bi j'ai toujours défendu la, la, la position des créateurs ils l'ont toujours mis sur le banc des accusés et c'est pas normal waaw yàlla dañu koy seetal waaw am na loo xam ne je ne pas parce que je sais conduire auto euh, commencé à conduire à l'âge de 13 ans mais il y a 20 ans you m'a conduire dans la circulation je ah, suis toujours en embouteillage d'accord. ma ne ñiy taxawaloo tax mu am mais ñiy dox farata taxuñu waaw embouteillage boo gis ñiy taxawalu taxawalu seetaan bett ma dem dellu si mais loolu fan la doxe farata waaw bu ko defee wàllu discipline euh, du yàgg 4 heures 48 lañ cay muñ bàyyi xel ni euh, bëccëg bi Cheikh Al Hadj moomu ko dafa am kum ko sedd muy yonent bi te boo xasee ba ni jullit la euh, war na am loo ko sedd moom te gis nga mandute mandute alquran ak mandute mandu te dine xoolal les chrétiens ni leen alquran tagge chrétien yi la wax wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون يلا نينا مودستي تكريتشان يلا يم نعم. سين مودستي نينا نعم، نيوم رك نيوكو أم تا نعم. آه، تا لس ولا في وقت كسوجي آه، آه، تاغ بوبا دينغا ba tax na yooyu yëpp ñu di ci bàyyi xel bàyyi xel bés bi bàyyi xel boroom bés bi tabaarakallaahu على حبيبك خير الخلق كلهم